asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp ay di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ko nuyu bu baax te di ko sant di nuyu it sëriñ Cheikh Saliou Mbàkke moom mii suñu bunt fa moom ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér euh, kaddu yi day day kaddu ndongo kaddu taalibe goo xam ne euh, amul lu dul Serigne Touba te it bëggul lu dul Serigne Touba te lu dul Serigne Touba it yitteelu ko kaddu yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kaddu tuub ki sama diggante ak xalif général des Mourides. muy sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke di tuubal di ci lu ma xam ak lu ma xamul di tuub ci lépp loo xamante ni euh, dox na fi te muy loo xam ni kat ak matadi doomu aadama la maa ngi tuubal bu baax di ko jéggalu wax ne man day ci ndigal rek laa aju moom day li ma ko wax rek day sëriñ ci ñun ndax moo fi toogal sëriñ Tuubaa day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin wu dëppoowul ak li muy digle maa la muy tere moom day ñoo ngi ciy tuubal te di ci tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal mbooleem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel sëriñ Tuubaa ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqari la ndax yitte bi day du def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom day li xalifi bëgg rek moom de lu mun nañu moom la bëgg mbaa lu mun nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg a bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp di santaat bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi